yëngatu si wàllu service civique national euh, peut-être première question bi moom mooy boo du wax ñu suñu plaise seen euh, plateforme bi euh, nag naka ngeen di liggéeyee noo leen ko tegee et cetera et pour ñi seetaan voilà gën a gën a comprendre waaw maa ngi lay remercier ci question bi kontaan naa ci trop mm. mm-hmm. donc plaise civique plateforme des anciens IDL du service civique national la Euh, ñun dañu nekkoon ay volontaire du service civique nationale mooy première ak deuxième promotion bi 99 mooy première bi deuxi 2000 mooy deuxième promotion bi y avait 320 euh, communautés rurales euh, ñu jël ñaari promotion yooyu boo leen boolee 320 lañ mm-hmm. ñu yóbbu leen ci communauté rurale yi pour ñu leen di jàppale ci mbirum développement local ndax dafa amoon benn président conseil rural bu approché woon UNICEF di ko wax pour mu ñëw dimbali ko mu ne ko UNICEF du doxalee noonu léegi bu ngeen bëggee da ngeen di jaar ci service civique ñu former leen ay volontaires bu ko defee ñu déployer déployer leen ci biir euh, communauté rural yi loolu moo indi woon promotion wu IDL yi ñu yóbbu leen ci communauté rurale yi ñuy jàppale euh, président communauté rural yi ci affaire développement local mm. ci structure euh, décentralisation maintenant nag loolu 99 mille la bi ñu toogee ba en en 2019 daanaka 20 ans après ñun ñëpp kenn ku nekk génn nañ tas nañ ndax bi ñu paree sax suñu deux ans de volontariat dañ ñu redéployé waat ñun ñëpp ñu ñoo nekkoon assistant communautaire yi. Hmm. ñu delluwaat ci communauté rurale yi. di nekk genre secrétaire municipal di jàppalewaat euh, les président de conseils ruraux. Hmm. ci seen doxalin. Hmm. maintenant nag bi ñu toogee ba ñëpp tas daanaka am na ñoo xamante ni ñu bëri ba léegi ñu ngi des ñoo nekk les secrétaires municipaux pratiquement les cinquante pour cent mais ñi ci des dañoo tas ñi nekk ci organisme internationaux yi. Hmm. ñi nekk ay journalistes maa ngi nuyu de passage seen concert Ndeye faatu Wade si ñun la bokk. Ah waaw euh, donc ñi nekk ay enseignants ñi nekk. ay leneen daal ñi nekk am na sax ñu nekk ay maire mm-hmm. ñoo xamante ni si ñun lañu bokkoon mm-hmm. donc nit ñëpp dañu tas kenn ku nekk am dara looy dem liggéey ci sa côté mm-hmm. bi ñu toogee ba vingt ans après ñu ne pourquoi pas ñu regrouper wu waat jéem a xool naka la ñuy dajale woo def benn association boo xamante ni dina jàppale service civique national ci ay activités ci formation yi nga xamante ni moom lay def pour les euh, nouveau volontaires ak ci yeneen activité yoo xamante ni ñun mën nañ leen si appuyer ci ci basé wu ci suñu expérience yi nga xamante ni moom lañu am mm-hmm. ci bi ñuy nekkee volontaire du service civique national mm-hmm. loolu moo tax ñu créé en 2019 euh, place civique euh, def nañu assemblée générale constitutive bi euh, déposé nañu aussi am nañu récépissé génn depuis 2023 maintenant nag ñu prévoir lancer officiellement suñu ay activités Euh, le samedi demain vingt euh, cinq octobre incha allah mhm. hôtel la Ndiambour. Mhm. ok waaw dañ ko bëgg lancer officiellement. Mhm. ñëpp xam ni place civique existé na. te aussi dañuy day commencé ay activités officiellement bien que am na yenn activités yoo xamante ni euh, jot nañ ko réaliser dinañ ci ñëw ci biir waxtaan bi.